donc voilà, donc euh, euh, la situation que l'on a ici, donc c'est stable vraiment. Donc tous euh, les épreuves du matin donc se sont bien bien bien déroulées. Voilà. Donc quant à l'accueil, les salles, donc tout a été bien bien bien préparé. Voilà. Donc comme je l'ai dit tantôt, on a vous avez ici donc un centre qui est essentiellement donc technique. Voilà, on a 269 candidats dans ce dans ce centre là. Donc il y a 269 euh, candidats, donc on composait 208, euh, donc on a un seul euh, absent. absolument, absolument. Donc vraiment tout, a été bien préparé. Donc les épreuves sont, là en, quantité suffisante. Le personnel aussi, il y a assez de surveillants. Donc les secrétaires aussi sont, là. Donc tout se, tout se déroule bien vraiment. Donc le dispositif vraiment est, complet, est tout au complet donc euh, comme ni ñu ko waxee woon sànq ci ci ci ci nasaraan donc euh, fi fii moom situation bi vraiment lépp lépp lépp lépp baax na euh, nit ñi élèves yi ñëw nañ bi ñëw aussi environnement bi ñu fi fekk salle yeeg yooyu noonu yëpp ben, fekk nañu defar ko ba mu baax set nañ aussi mën nañ vraiment accueillir élèves yi sans problème personnel bi tamit secrétariat beeg yooyu noonu yëpp ñoom aussi ñëw nañ ñi ngi ñi ngi fii donc ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi doxal liggéey bi donc ci ay côté euh, problème amul dara luñu fi luñu fi signaler gum euh, pour le moment donc lepp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dem. waaw donc euh, ñi ngi am 269 candidats donc mom lañ am fini. donc ben ken dal lañ noté ne ñëwul donc fi ton ni ni. donc 268 candidats ñi ngi ñi ngi ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi def examen bi actuellement waaw waaw waaw instant instant bi moom amuñu amuñu dara vraiment lu ñuy lu ñuy kii jumtukaay yi soxla yëpp ñu ngi fi bu dee épreuve yeeg yooyu noonu donc yëpp ñëw na te te te doy na vraiment yi soxla yëpp moom pour examen bi jaar jaar si yoon moom yëpp yëpp am nañ am nañ ko quoi. waaw ñi war a ñëw ñëw nañ secrétariat beeg donc ñëpp ñëpp ngi fi donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey waaw waaw fi mu toll nii moom macha allah. je m'appelle Zali Khatouba je suis dans le jury 1 euh, centre Saint-Mamadou Diaw je fais ici mes études depuis quatrième jusqu'au troisième. Ah, les épreuves, les épreuves c'était abordable à ce que je vois pour l'instant. Pour l'instant, français, TSQ, euh, rédaction, dictée. Le soir, le soir, euh, anglais et Pour l'instant, les épreuves sont abordables, ne sont pas difficiles du tout on espère bien euh, que les professeurs vont continuer sur ce thème de nous aider euh, de nous aider à bien euh, accomplir nos missions quoi vraiment on veut on veut <laughs> on décrocher le BFM quoi nous tient bien beaucoup à vous de nous aider dis on a on a a donné deux sujets pour le choix de traiter de ces choix le premier le premier sujet c'est sur Mariama, sur, sur Mariama, Mariama Ba. Mais le deuxième, c'est sur le bonheur. Le, le, le bonheur, euh, j'ai bien expliqué. J'ai bien expliqué. Je suis ici, Diaw, centre. Euh, je suis ci jury 1, technique, épreuve. Moom jàll na lu baax moom neex pour l'instant daal loolu lañ mën wax pour euh, français. Qu'est-ce que dictée dissertation bi français bi yomb na de mom puisque Mariama ba la jox à part deuxième sujet bi la plupart mën na wax jëluñu bobu non parce que euh, dissertation Mariama ñun moñu gëna gën la loolu wax est-ce que kam yomb na puisque ci ci examen tamit rek la wax comme c'est c'est CFE n'est-ce pas cm de mom mom la wax yomb na trop mais euh, kii gis nañu pour l'instant moom épreuve yi méttiwul quoi pour l'instant épreuve météo ki lañ def français def nañ test dictée ak rédaction pour l'instant ngoon ngoon dañuy def euh nga xamante SVT ak anglais waaw ngoon lañuy def SVT ak anglais mais pour l'instant moom waaw tout se passe bien quoi di di ñaan yàlla nag mu jàpp mu téye ko fii ba si kanam quoi parce que boobaa mo suñu arrangement waaw professeurs yi nañu jàpp nañu jàpp ci xéx bi quoi ba bañ a effort bi tamit waaw jàppale ñu quoi parce que ñun ñi def effort yépp manam pour am quoi ñoom dal ñun ñu ci mën loxo jàppale ñu ndax gis nañu euh, BFM ki examen CFA ak bëgg bëgg yëpp gars yi yëpp ñu ngi réclamé naan euh, daa daa saf ñun nag bu ñu ci mënee jàppale quoi waaw pour jàppale ñu si loolu dinañ arrangé trop voilà lu des lu des ci épreuve yi ñu yombal na ko rek waaw di ñaan yàlla nag ñëpp am ci barke Seydina Muhammad